lii ku la waxoon ne mën na yegg si ba toll fii doo ko gëm mais lenn ne bu tolloo fenn ak la mu laaj nga def ko jamono jàpp nañ ne fi mu ne li ci gën mooy yolomal yolomal bi nekkul ne jàngoro ji jeex na wala nañ ko doon xeexal wala dañ doon def jeex na yolomal bi mooy niñ ko tëjee ba kenn ku nekk am sa gis-gis njuuti réew mi yolomal na ko ba kenn fu nekk gis-gis bi nga ci amoon. nga war a mën ko jël utiliser ko pour xam naka ngay mën a comporté woo ñu dund ak jàngoro ji ñu sàmm suñu bopp sàmm askan wi ba nga xamante ni nañ ko mën a tënk te du du tere suñuy activité ñu daan nekk ñu nekk ci chaque jour ñu mën a xam nu ñuy dox fexe ba ji bañ a gën a law te mënu tere nga continuer def la nga daan def sax rek daawul mel nag na daan mel ndax dañ koo yolomal rek mais tamit nit ñi laa bëgg ñu xam ne jàngoro ji jeexul dellul ginnaaw fa mu nekkoon na nag bu yokkul dellul ginnaaw mais responsabilité bi kër président wax mooy kàddu gi ku nekk yaa war a mën a am sa responsabilité boobu pour mën koo sàmm débat bi ba mu jógee nii jàngoro ji ba mu fi duggee la politique jeex mbokkoo ak jàmmoo ak joxante loxo moo am may nag saluer opposition li ñu opposition laa wax de waxuma ñii ñi nga xam ne dañoo ci mbedd mi tëñëx tëñëx telli telli ñi naan opposition ci réew mi dem compétir tekki dara ñi ci ëpp ànd nañoo ak njiitum réew mi ak senegal yi bokk ak ñoom xeex bi gisoo ci kenn ku ci politique ñoom ñëpp ñu ngi te ñoo ëpp nit ñi xam-xam ëpp leen ñu mën a wax ñu ngi taxaw jàpp seen njàmb ànd ak askan wi wala leen ni ñun ñu ngeen la bëgg a jiite ëllëg And nañu ak yeen di leen ci donc ñi nga seen seen te bëgg dal tay ji dañu bëggoon ci ñu yi responsabilité bi président wax tam lay responsabilité moy tay bu yi yi ñoo décidé ci jakk yi tay do dégg na réew def def on nous met face à nos responsabilités Responsable, bu def tay ku ci am lay wax wol général nga wax ku ci am lay wax do dégg ku ci parce que ñom ñom mom dogal boobu njiitum réew da doon joxe le ton parce que mooy moo war a encadré léegi dem na ba delloo nit ñi seen responsabilité ñooñu des nañu gis pourtant déggoo ci dara te pourtant ay moyens yu mel noonu jéem nañ politique politique jàllul li ñuy jéem a def mooy jaxase réew mi sans doute sans doute féewalante nit ñi seen biir te jàngoro ji mënuñ koo xeex ci division dañuy mën àndandoo bokk taxawaay mën koo xeex mu jóge fii wala mu wàññeeku parce que day gën a law mais mën nañ fexe ba ni muy lawee suñu biir mu gën a wàññeeku ci suñu comportement yi am te mu nekk ñu bañ a encouragé ay xiiroo ñaalo bi coog mbaalo waxtu bi laaju ko juboo àndandoo joxante loxo taxaw Sénégal laaj mu la laaj